kon mbokk yi dañuy jébbal kàddu gi maam Cheikh Ndiaye sama xarit sama soppe surtout maam Demba Ndiaye waaye sëriñ sëriñ Daaru Assane Ndiaye koo xam ne réew mépp ñu lay sagoo Ndiaye yàlla nga fi yàgg yàlla ba mu sottee kat xam ngeen fu mu dëkk ko ma ko laaj demaatee na de Ndiaye Ndiaye la Ndiaye la yàlla li mu am lépp daf koy jaay. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki dëkkandoo yi góor ak jigéen mag ak ndaw foofu waaye mën a jóge te nekk ci barab bi wala nga nekk fu jege barab bi sëriñ maam Cheikh Ndiaye nee na ngi lay nuyu te dala wax dalal jàmm ci barab bi kon sëriñ maam Cheikh nee dëkk bii di Fass na nanu xam ne genn kër la ci njaamur ndax mboolem lii njaamur mbaa boog fii nu wër nun te nu xam ko dëkk boo fi dugg tey mën nañ ne fa ku dëkk Fass kuñ fi masa topp tànkam mu dellu Fass ci ab ñaaw téef musta am ci njaamur loolu suñ maam Seex mën na ko seeral boppam li ci saa itam mooy lii mu wax lii ngeen wax ne moom ngeen fi bëgg ba tax ndaje mi tàmbali moom mi ci boppam di ba mooy la ko gënal xaalisam moo jiitu ca loolee ndax alxuraanul karim mooy lépp te bépp ndaje moo gis ñu daye fa ba jóge fa ñu ko fa ndaje moom yàgg yàgg naaw li jëm waaye du jëm kanam kon sëñ maam Seex ne mu ngi leen ñaanal ci kattanu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barab bi li ngeen ci bëgg ngeen am ci lu kawe seen njort loolu nag mooy diine ndax moo mi su fekkoon tey mën naa ànd ak ñuy liggéey di andi noonu lay def waaye naa fekk ngeen ko daara am ba noppi lu man doy ngeen ko jàppale ci biir ak bitti waaye fekkoon tey yuru woon daara day lu mu am dana ko indi bokkoog yéen daara yàggee mu indi ay dongaam ak taalibeem ñu bokk di jàng nee na loolu mi ngi leen ci ñaanal suñ suñu borom def leen tawfeex ba mu dem ba nekk université Njaambur mboolem luy doon Njaambur bugg xam am am xam-xam man ko fee amee mi ngi leen di lu baax nag di ñaan ndaje mi itam bañ a nekk suñu mujj ndaje